alors boo bu ñu yemee bu ñu génnee ci cadre juridique cadre strictement politique ban sensation nga ci nga ci nga ci. sur le plan politique may mun a toogoon nañ fii boobu dëkk bi tàng na. Mhm. kenn mu espéré wul woon bu ñu jubee élection yi dëkk bi na sedd ni mu sedd kenn yàlla suturaal ñu ba dëkk bi ne sedd guy. ñu tàngalaatal ko de manière artificielle loolu moo loolu loolu moo ma moo moo moo dés moo décevant sur le plan politique normalement les choses suivaient leur cours normal il un rapport de force politique qui se joue mais on n'a qu'à laisser le rapport de force politique se jouer que les Sénégalais choisissent ku ñu bëgg mu nekk seen président droit boobu yoon moo leen ko may y eu des aveux quand un journaliste dit que Macky na du dem parce que bu demee pouvoir bi ñi ko bëgg a jël euh, euh, dañ koy joxe ay islamiste xaw ma lan la. non c'est un journaliste euh, français. c'est un journal qui, qui dit qu'il a parlé au, au, au parlé au président Macky Sall qui dit que du dem parce que bu demee dëkk bi day daanu ci loxo islamiste na bàyyi Sénégal yi choisir moom ñu sant ñu ko mu tànnal ñu. dañ ko dénkoon kër gi xam nga président yi Sénégal président Macky Sall xam nu war a xam palais boobu ku fa nekk locataire nga doo propriétaire locataire nag dafa am fu muy yem doo toog ba mu neex la nga nekk locataire xëy am taxawaayu propriétaire si loolu la nekk loolu nag mënul nekk mënul nekk bandaam jeex na ala kulli dina dem nañu bàyyi ñun ñu tànn ku ñu neex xanaa loolu loolu yu jafewul moom mën na fi toog ne tant que aw assurance bu ma fi bàyyee di wax diw kii mooy jaar du ma bàyyi kon ba kañ loolu mënuñu ko nangul. alors ñu ñu envisager beneen cas de figure pas du tout souhaitable euh, si au 2 avril devant la pression. euh, interne et extérieure, le président décide de se retirer. Il est remplacé par le président de l'Assemblée nationale pour une durée de transition de trois mois. Il doit organiser les élections. Cas de figure boobu est-ce que bu amoon mun nañu tenir l'élection en respectant les échéances les les, les échéances. Mais, bien sûr dañ ko respecter parce que loolu constitution moo 2 avril bu arrêté mooy mandat 5 ans mu yokku pas de problème constitution bi moo ko organisé kii mooy def suppléance bi dans tell de la ñu organiser élection ki ñu élire am 5 ans kooku ah donc bu bu fekkee ne au 2 avril le président se retire. oui euh, il est remplacé par le président de l'Assemblée nationale mun nañu organiser la suppléance du président de l'Assemblée nationale. normalement du condi condition supplé suppléance yi mooy vacance. du pouvoir. malheureusement fii foog ñu interpréter ko parce que je ne suis pas sûr que bu mandat au président jeex si si on n'a pas élu un président un autre président il y a vacance parce qu'il a pas de président je pense que dans ces conditions appliquer parce que condition boobu eh, constitution bi prévoir ko non mais condition constitution prévoir ko mais je veux dire aujourd'hui on peut on peut s'adapter pour ban le plus important mooy que mandat cinq ans duñ ko dépasser maintenant on peut avoir une transition courte sous forme de suppléance qui pourrait être assurée par le président de l'Assemblée nationale pour organiser dans dans les dans les trois mois. et pas forcément dans le délai de trois mois mun na. ah non euh, non non c'est là aussi délai boobu la. ci délai trois mois bi ah, mënu ah, ko mënu ah, ko excéder mënu ko passé la suppléance mënul passé loolu. suppléance mënul passé la